jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb ba tey ñu ngi nii ci Kër Massar génn ñu fi benn yoon waaye fekk naa fi xale boo xamante ne macha allah ci làmb dañuy waxtaan ak moom xale yi nga xamante ni ëllëg làmb am nañ ci ñoom yaakaar ëllëg bokk nañ ci ñiy téye làmb moo lay wane ni wasaare làmb bépp xale boo xamante ni yaakaar nañ ci yow ni ëllëg buñ la génnee tey bu ëllëgee di nga doon champion ci làmb say image démb buñ ko wanee tey nga mën a ree mu yóbbu la fu sori looloo waral tey ñu seet si xale boo xamante ni tur bi mu njëkkee ci làmb ak tur bi mu mujjee ci làmb actuellement bokk soq de la doon wuyoo wala soq bu Malika tey moom lañ seet si ngir waxtaan ak moom dinañ waxtaan ak moom ci lépp ci làmb ci ñett sorties yi mu def ci làmb ndam yim ci jot am lépp dinañ ci waxtaan mbër maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay baatu auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani ginnaaw bi ma sant yàlla julli si bi sant sama sëriñ Seydi Aboubacar Sy di sant yow mi di la jaar di jaar Cheikh Bass ak Pape Demba mi waral lii di jaar gaay ma fekk fii sama gaay Omar ak Souley ak Fallou ak mbër mi sang ak gaayam yëpp maay charré jaaf di bëgg ñëpp di bëgg waa ëttu lamb di bëgg waat gaay yëpp di bëgg suma papa suma yaay di bëgg Malika gi yëpp suma gaay yëpp bu nga xam ne maa ñoom ñooy jotaay maa leen di bëgg di bëgg suma waa écrit tamit ah, di bëgg ku mel ni grand Tony grand Seet Diop xam nga grand Def grand Aline Mbaye ëttu lamb ji ñëpp maa leen di bëgg a baax di leen siyaare di la bëgg yow di xaar say question daal soq wala soq bu Kër Massar ban tur nga ci tudd. waaw soq bu Malika lañ tuddoon. soq bu Malika. waa mais actuellement duñ ko dindi def jànkalaar bu Malika. lu ah. waraloon soq bu Malika bi. waaw soq bi dañoo doonoon ay xale nekk ci làmb xam nga. waaw bu ñuy jógee bu ñuy nekk mbapat bu ñu jógee gaay bu jóg xam nga ma demoon ba doon gars yi di ma wax da nga xaw a yor isilu sox sama gars yi ñoo ma ko tuddee woon sax mais xam nga toll nii waaw yor sa yëfu bopp da ciy baax ak fi jamono toll nii lu ci mel ni youtube beeg yii nii yor sa yëfu parce que boo duggoon tey nii di xool di bind sox nii boo bindee sox mag ma gis xam nga waaw kon il faut que ne sama yëfu bopp moo tax man bëgg naa ëllëg ku dugg youtube di ma xool boo bindee sama tur man ngay gis pas ngay gis keneen quoi loolu moo war a ma changé sama tur tudd jànkalaar bu Malika. jànkalaar bu Malika jànkalaar bu Malika mooy lan. waa jàngalaar jiit la rek waaw jiit la jiit bu mag moo tax gaa naan jàngalaar quoi waaw moom laa tuddee sama bopp te pour bi may gën a doon tout temps moom laa tuddoon naa ah. waaw mais après dem ba si biir sama gars dindi ko mais bi ma demee ba xam ne xam nga léegi looy gën a nekk si làmb da ngay gën a màgg xam nga ak technologie ni mu da ak jamono bi ñu toll di jamono numérique da ngay xam lépp nu muy demee waaw loolu moo tax ma dindi tur bi. nga bëre ñaata combat arène. waaw daaw laa dugg si arène bëre trois combat suñu borom suturaal ma yëpp doon trois victoires. ñett combats nga bëre ci benn saison. waaw benn saison bi laa bëri trois combats yi am trois victoires. Hmm. waaw. kon mën naa ni deux mille dix neuf nga dugg ci com ci ci làmb saison deux mille dix huit deux mille dix nga bëri ci saison boobu ñett combat am ci ñett ndam ñett ndam yooyu kan moo tëggoon làmb ji ak yan mbër nga daan. ñaa moo ko tëgg sama premier combat maa ngi daan kat yi national maa ngi daan kat yi euh, Ibou Senghor moo doon bëri grand combat bi ak Malal Niani ak Mbelane Niang ñoo bëre grand combat bi ma daan ci kati senior suma deuxième combat suma deuxième combat la kee bëre grand combat bi Ndiaye Tine ak Birame 2 ak Birame senior boobu maa si bëre daan sama troisième combat ci la Aline Mbaye Nder di bëre ak Maurice boobu laa bëre tamit encore daan oui noonu la demee. fi mu toll nii ban écurie nga nekkoon ak ban écurie nga nekk ba tey. non maa ngi Kër Masar mbooloo. foofu nga mës a bëre. waaw fa Kër Masaan mbooloo laa bëree sama premier combat ba fii actuellement tamit dañoo amaat combat le le bii di ñëw dama am combat février man ak Mbengue Mboro di ñaan yàlla ñëpp génn jàppale ma suñ borom defal ma ndam incha allah. waaw Dieye moo ko tëgg. ah Dieye combat Dieye waaw ci laay bëri incha allah. le 16 février le waaw. mooy waaw ñëw na ba pare. ay fan mos des ñëw na pare parce que le 16 moom ñëw na ba pare mooy jour combat bébé Julle Thiatou Yoff ci laay bëre di ñaan suñu borom def ma si daal waaw parce que ñu ngi koy pare comme di ñaan pare suñu yeneen combat yi. Hmm. nekk mbër buy nekk ci wàccaay daal. waaw waaw. ñu toll nii ñaata séance ngay entraîné par jour. waaw instant yii moom loo liggéeyul woon bëri bi mënatoo koo jóg. waaw le seize ñëw na quoi xam nga. waaw instant yii li des lépp la su ma xëyee damay dem géej su ngoon ma dem contact noonu la man noonu laay mos a entraîné suma combat damay dem géej dem contact géej contact noonu laay def. ñaataat nga am. man boo ma gisee rek xam ne ñun ay xale lan yu ndaw ñu nekk ci làmb nii rek xam nga waaw ful bi teel a toll topp nii xam nga moo tax muy demee ne mais daal ñun ay tout tànk lan te ñu ngi ci làmb. nangoo ñaata at nga am. <laughs> sama grand tooni nee na may wax yooyu quoi mais war ngaa mën a xam ñaata at nga am ndax licence bi moom jaaxalut CNG waaye war nañoo xam xale bi biñ koy jël ñaata at la fu mu toll ci làmb ñett combat yi nga bëre loolu la loolu. waaw yow loolu moom xam naa ne ku si mel ne sang mi nii boo ko laajee dina la wax booy bi mooy kan parce que. moom si ñu ma yar la bokk parce que bi ñuy gën a tuut tànk fii lañ doon entraîné ma doon booy seen biir nekk fa xam nga ñoom bokk na si ñu ma tàggal ñi ma gën a bëgg a làmb ñoom sang ci bokk ñoom booy ñaa xam nga ñoom uncaa yeneen gaa yooyu waaw ñoom booy bi ni carrément ndóol la seen biir waaw noonu la demee. sa ambition ci làmb la. waaw sama ambition ci làmb mooy li ci gaa yëpp am rek waaw ku si nekkat boo nekkee boo déggee souvent da ngay a teral suñu yaay suñu papa may si dugal ah waaw làmb li may soxla bariwul de non lu may jël si leen rek génnaat waaw nekkuma ci di mooy benn passe-temps bi ni noonu daa am lu may lijjanti ci làmb ji rek delluwaat. lan nga yaakaar ne moom ngay lijjanti ci làmb te mën nga ko cee am. waaw mooy teral sumay parents te dinaa ko ci am incha allah teral sumay parent laa ci wut teral képp koo xam ne mi ngi nekk sama ginnaaw am ci man yaakaar ma teral la rek laa bëgg te ci kàttanu yàlla suñu borom dina ko may parce que li ko tax ñu koy maye li tax suñu borom di ko may man maa ngi ci waaw mooy lan entraînement bu jotee sérieux surtout mbër da nga war a sérieux sérieux respecté sumay parents waaw après leen li des yëpp ak ak détail la ak fonk say waxtu juróom leen des yëpp ay détail la yee noonu la demee. nekk mbër fii ci Kër Massar yomb na. waaw nekk mbër ci Kër Massar yomb na yombul parce que boo gisee yomb na yombul mooy ñun amuñ benn ay autorité amu fi wala boog bu dee am nañ fi autorité yi lay jàppale bariwul fii nii kon nekk fi mbër yombul waaw mais lu tax mu yomb mooy gars yi ngay nekkal rek boo jugee ñu jug boo tëddee ñu tëdd xam nga boo amee combat gars yi duñ tala lekk duñ tala naan ngir yow. kon ñooñu ne boo leen gis rek xam nga day yomb ci yow daal waa parce que bët du yoonam mais xam na lu boppaatan te gars yi dañu naan góor day jàpp ci góor góor mën a àgg waaw bu du woon gars yi ngay àndal li woon gars yi ngay jotaay non day métti trop waaw mais nag sant yàlla bi ñu amee ñi nga xam ne milieu bi nii milieu làmb la te gars yi dañoo bëgg làmb dañ koy dund ak sans problème waaw mbër mën nga fay nekk daanu ay combat ay combat mais gars yi dañ lay gën a bëgg parce que suñu borom moo leen laaxaale loolu dañoo bëgg làmb quoi mais noonu laa Hmm. ñu lay jaajëfal kon. waaw di la dolli si rek yow it di la bëggee di kontaan ci di wax site bi wasaare lamb yàlla na dem ba doon ci site yi site fi ko gars yi fi comme fi ñuy dégg site yëpp ñu leen fay dégg di kontaan ci yow di bëggee Cheikh Bass di bëggee Pape Demba. mais di ñaan nga may ma rek ma am ñoo xam ne faaw ma siyaare leen sant leen xam nga comme dañ ciy jàpp te ñun sens bi la ñu am pour wax leen ko quoi xam nga kon ñooñu il faut ñu leen sant bu baax baax di leen gër ku si mel ni Omar Sow suma gaañ la maa ngi koy sant bu baax di boobu léegi muy jàpp bàyyiwul suma gars yi may àndal ñoom Sayer xam nga ñoom Ousou Boy ñoom Ali Thiam gars yi suñ benn grand Pamor da ciy sonn ñu ngi koy bu baax ñoom Njawar si la di bëggee tamit waa ëttu làmb ji ëttu làmb ji groupe WhatsApp boo xam ne dañ maa seen bopp te yàlla rek tax li bëggee ñëpp képp ku sa numéro nekk ci ëttu làmb ji maa lay ku ci mel ne grand Bamba El Capo maa ngi koy bëggee grand Tony xam nga grand Saïb kan maa ngi bëggee ñëpp grand Moussa exemple grand Jamu su suma jigéen Amina maa ngi koy bëgg di siyaar tamit suñu waa kër sama mag Oustaz ak soxnaam Adja maa leen di bëgg bu baax a baax a baax di leen siyaare daal mooy du kontaan ci yéen daal yéen tamit yàlla na yàlla defal jaamu ko jaajëf champion jaajëf joo. jërë jëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la champion bi wax wax la boo xamante ni nag junj na ci làmb ndax mbër moom boo ko laajee rek mu ne teral samay ñaari waajur laa mooy sama ambition ci làmb mooy la buuse doon wax mbër bu ma jël avance am xalaat ni mu ne teral samay waajur laa bëgg rek damay daw ndax mbër yëpp ndeysaan loolu moo nekk seen xel tey képp ku bëgg a teral say waajur yàlla na la suñu borom kàttanal dooleel la ba ni nga ko bëggee yàlla suñu borom dimbali la ci ba nga defee ko noonu ci barki moo Muhammad mbokki noonu lañ leen di tàggoo tàggoo nga xamante ne moo du tàqali ko ba ëllëg allah ci beneen xew-xewu làmb ngeen def